ولا عاقبة للمتقين ولا أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا جعلني الله وإياكم من الذين national nga xam ni ñépp ñoo ko soxla muy al amnu fil awtan tey bépp seetlukat buy def synthèse ci li xew ci àdduna bi jamono yi ak yi ko weesu day bëgg a jaaxle àdduna bi daal léegi ay tiitaange moo tegloo ci xolu nit ñi ak i jàkk-jàkk ñii ñu ngi leen di ci ëpp leen doole ñee ñu ngi xiif famine dugg seeni dëkk te amuñu lu lekk tubaab yi ñu ngi defari arme di ko jaay ñi néew doole ñoom jëlee ci xel ak société sax yuy feebar ci injustice bi dox ci àdduna bi képp kuy xalaat di seetlu àdduna bi nit bi injustice di bu amee looy bañ rek da ngay mujj nekk bu dox nit ñi day dem nañ ba tiitaane mooy feeñ seen kanam ñoom ñëpp ci àdduna bi fenn ku ci mucc amul kenn ku ci mucc amul ñu agressé ma wala mbooloo sax ñu bombardé ma ay innocent yu xamul dara ñu leen di rey di foyee seeni bakkan ci ay liir ay jigéen ay góor ay handicapé ak i alal bu koy yàq ci ay bombardement yoo xam ni cause bi boo bàyyee doo ko xam problème yoo xam ni cause bi boo paree ña koy def ñoom ci seen bopp ñoom ñoo taxaw wax ni effectivement nekk Saddam yorul arme nekk yorul arme léegi ana Saddam fi lan lañ ko rey yaay ko lool xale bi nga ci dem ku dëkkam jaay ko doole rey ko tey Égypte yàqu na Libye yàqu na nga dem Égypte noonu foo mooy créé problème boo xam ne bu paree du mu ciy génnee ay jarbaat am ay awaam am ay gumbal ñooñu kenn ku ci nekk mer ñooñee mer seeni gisin du bokk am na koo xam ne day mer bàyyi mbiri yàlla am na koo xam ne day mer di ko nakarlu am na ñoo xam ne jël ni génnee Europe ne dootul fa yem parce que injustice mooy dox ci àdduna bi am na ñoo xam ne ci lañu génnee seeni liggéey ne ñoom xamatuñu li ñuy dund lan la waaye am na ñoo xam ne ñoom it dañoo mer ne léegi ñoom it dañuy jël seeni aw xeex ci seeni pexe ak seeni moye xeex boobu ñuy xeex ñu tuddee ko terrorisme ñeneen ñi dàq seeni président rey leen rey société rey xale ya du ñu ay terroriste ñoom ñu noble lañ parce que ñooy la France les États-Unis ñoom ñooy Europe ñoom bu rey ñoom du ñu ay terroriste fee ñu ne fee nga àndal moo tax na suma fooy jëm léegi dootul libre ci sa conscience dootul libre ci say choix dootul libre ci say gisin même analyste yi gën a mag ci àdduna bi te maandu xamatuñu ñu ñuy analyser problème yi ñaata personne yi fi tëj ay nit ci jaay leen doole tegu fen après wante na mu àttana ci wante na mu bi ko créé dara àdduna bi di doxee te kanam la jëm ñaanuñu ko yàlla kanam la jëm lan moo tax injustice fu mu amee rek day am ñu bëgg taxaw instaurer justice donc amuñu doole léegi ki bëgg a instaurer justice te amul doole kooku dañu koy jaboliser dañuy yàq ya yàq tegginam yàq turam mbokk yi loolu lépp nag nekk ci pexe Occident. bépp jullit bu am seetlu li nga xam ne lii fexe Occident la ak ñi koy dimbale te nekk naa fexe ko moom ñooy dimbale Occident ci ay xalaatam tey bu ñu waxee ni sécurité ñëpp a ko soxla tey Occident moo gën a soxla sécurité te am na doole am na moyen am na lépp mais la sécurité fan la koy jëlee fan la mbokk yi sécurité bi ñu nekk ci nga may nit ki jàmm pour nga am jàmm soo buggee jàmm da ngay instauré jàmm mais mënoo di tooñ ba pare bëgg sécurité ak ah, lii la mooy gisiinu islam mooy gisiinu ku yeewu xaw ma nag ku ragal waaye lii mooy gisiin sécurité bi ku bëgg yaa koy njëkk sant da nga bëgg jàmm may nit ñi jàmm da nga bëgg paix muy salaam may nit ñi soo ko defee rek ñu rendre la jàmm jàmm am ñëpp am jàmm yàlla bi yàlla ñu bëri foog nañ ni sécurité mi ngi aju ci nit ñi daal kenn du rey kenn nit ñi dalee kenn reyu kenn ci façon rayante bu ñaaw bi am nga rayante bu jiitu woon te ñu ngi am ba léegi da ngay dox ñu agressé la est-ce que loolu sécurité la da ngay dox ñu dugal loxo sa poche bu dee dégradage bi ni mën a dëpp la ñuy def nangu li nga yore tiim la ay bal roose ba wala seen ñooñu ko def ñu leen tuddee bandi dañ leen di wër peut-être ñu jàpp leen wala ñu bàyyi leen mais bu dee kenn moo ko def ngir fayul mbooloo ñu yàq loolu mbokk yi bu ñu waxee sécurité dëgg dëgg dëgg mi ngi amee ci diine wala amul ala diine ci diine lañu mën a amee sécurité ak pas-pas islam diine la jiital su diine amul sécurité kenn du diine lan mooy problème bi parce que diine ci xol la sax lu sax ci xol ku ko bëgg a génne da ngay sonal moom loolu moom moo tax suñu bëggee diine am nañu sax suñu bëggee sécurité am nañu fexe ba diine am jàmm bu ñu toll benn diine musulman musulman bi bu mu tooñ juif bi juif bi bu mu tooñ kii bu kenn ku nekk libre ci sa diine ndax laa ikraha fi diin kenn amul droit force kenn ci gëm-gëm ak pas-pas kon nag mooy kenn ku nekk mbokk yi Occident ndax mos ngeen a gis ñu xas yonent yàlla Isa donte ñu ne moom ñoo yem ñu ay jullit la Isa te nii la mos ngeen dégg ñu caricaturé yonent yàlla Isa gis ngeen ko mos ngeen gis ñu def ko Moussa pourtant ñii juif lañ ñii chrétien lañ comme ñoom ñaar ñoo ànd ñoo coiffé Occident muy juif yi ak chrétien yi. ñu ànd nekk benn ci doon jullit ñi borom bi ne taxsabuhum jamian wa qulubuhum shatta da nga leen di gis foog ni dañoo ànd te dañoo inversé ànd bi ban yonent la ñu caricaturé laaj naa leen ban yonent la ñu caricaturé saala bu xas ko kan la ban yonent la ah Muhammad yonent islam Muhammad ni mu mel ci xolu jullit ñi Occident mu kenn deful benn action parce que Muhammad ay baadoolo la jiite Muhammad ay arab la jiite Muhammad ay jullit la jiite dañ leen a war a jëlee si envoyé leen loolu moo indi insécurité ci àdduna bi loolu yaram jàmm da ngay bàyyi ngëm-ngëm jàmm da ngay bàyyi pas-pas jàmm loolu moo tax borom bi subhanahu wa taala ne laa tasubbu alladina kafaru fa yasubbu allaha adwan bi gayri ilm bu leen saaga yàlla yi yéefari koy ko def ñu saaga seen yàlla xàkkan yi kenn ku neem jàmm ci bañ islam nee na képp ku rey nit danga mel ni nit ñëpp kon bu kenn rey moo xam juif bi la moo xam chrétien bi la moo xam musulman bi wala keneen la mais bu kenn rey kenn suñu ko defee ndax koo rey moo rek bu jógee nga day kon yow nit rey yow yaa su jàmm amul kenn du jàng kenn du bind kenn du comprendre kenn du wax lan moo bu xel yëpp tiitee lu ñu xalaatoon day réer léegi ñëpp ci jamono bi ñu toll borom xam-xam yëpp gërëm kenn xamul looy bind kenn xamul looy wax lan moo tax boo benn œuvre wax ci islam ñu ne terroriste la soo bindee wax nan la ñu utee jàmm ñu ne terroriste la soo nee Muhammad mooy waaja ñu ne intégriste da ngay nekk entre sa sa xalima ak sa fooy ak li ngay bindee doo xam lu bind soo deful daal mu yóbbu la nag ci bëgg a yombal bëgg a yombal boo dem ci affaire yàlla ci yàlla musal ñu ñëpp xam nañ yéefar yi mosuñu bëgg islam mbokk yi te duñu ko mos a bëgg dégg tasaare ñoom ñooy waxee ni mu leen neexee fàttali ñu ngi rey ay nit mais kenn du ko wax ñu ngi saccagé ay nit topp palestinien yi leen rey di bombardé jullit ñi mais benn yu dox la moo tax parce que ñoom ñoo yore seeni information lu leen neex la ñu koy jàllale expliqué ñu rek benn nit ci ñoom ñu tasaare ñii ku am xel xam nga li ñu am ci àdduna bi maanaam ki ma yaram nag mooy naafiq bi jullit bi nga xam ne ñu koy naafiq la yare ànd ak occident yàlla boo ko mën a joxe mais boo demee làkkatu ci Europe mënuñ la ko jox ndax ñoom ko soo demee làkkatu États-Unis mënuñ la koo jox ndax ñoom amuñu ko matériel bu ñu lu mu luuree luuree am mu gis kon jàmm dal ci yàlla ñuy xaar ko mbokk yi bokk na ci xeexu Occident mooy nit ñi sàggalee seen gëm te ñoom ñoo ko sabab lan mooy diine àdduna la ñuy ñëw uti alal jàng fexe ba mën li Occident mën fexe ba ci côté arme ngeen def ci nangam nangam parce que jullit bi bu demee ba gisatul àllaaxira àdduna lay gis rek nax ko dafay yomb li ëpp ci jullit ñi tey soo gisee seen i gis-gis seen i xalaat di ànd ak Occident parce que àdduna amoon daal ñu daal di ne allahu akbar asalaamualeykum amul leneen jullit bi amoo droit xaar amoo droit joxe si piscine amoo benn droit yow daal fi ngay yem mooy duggal jàkka julli seen wala demal loolu islam wala islam ne non islam yàq na ko kenn du wax dañuy am doole dañuy am ñu leen téye am ñu leen jàppale ci journaux yi lu bon lañ ciy wane ci télé yi lu bon lañ ciy wane ci conférence papaam amaan na mooy bilaalu ñàkkale mooy noonu papaam amaan na mooy imaamu koñ bi mais kooku day génn nga foog ni dafa génn ci kër gu jullit lu muy sol bi wala sax mu sol baax ci biir kër gi te papaam mooy bilaal papaam mooy imaam mais lu ñu koy wax te xoolal Zeynab la ko tuddee Aïssa la ko tuddee Fatima la ko tuddee ñeme woo sax kuy si sa doom ne ko sol bi jullit bi jigéen ko sol donc muural sa yaram yëpp lan moo tax ndax jàpp nga ni boo ko nii mu doon leneen loo doon leneen la doon te doonoo ko nag moo la gënal mbon moo la gënal mu doon leneen lool doo ko ne doom jigéen a jullit muur doo ko ne doom jigéen a jullit daa war a tax kenn moom daal sol na baax génn na mat naa góor seet na faram dem na musique fanaan na àll jaay na boppam papa mun na yaay mun na ñëpp noppi loolu ñu tasaare ci dëkk jullit ñi jullit ñëpp ñu dund tey amul benn kër jullit booy dugg laa wax moo xam këru imam la moo xam këru ustaas la moo xam këru kenn la ci ñii loolu da nga fekk doomam mel nu baaxul mais munu cee wax dara ragal na cee wax parce que bu ci waxee am ay nit ñu ko wax mu am ñeneen ñoo xam ne xarit ak islam la ci seen ñàkk xalaat mooy ñu jël loolu tudd diine génne ko ci ne bokkul ci diine mag ñi suñ ñëwee mu ne diine mag ñi xas nañu mag ñi mais mais loolu saaga mag ñi la mag ñi bi fi nekkee seen marque dañ daan nuru tey kay lañu fi nekk seen i doom nekk di def ba tey ngay gis jàppal sëriñ wala benn nekk mais su def gën faa tey du ko gis tey ngay gis jàppal xalif général mu xeesal ba weex tàll tey du ko gis mais démb ñi sosoon kër yi dañ leen di seeni jabar daa war a gis dañ doon muuru ñoom sëriñ soosu démb dañoo amoon si kim tey day fekk bu doon nekk xam nga papa si kim moom si mais kooku ni mu gëmee xalaatu Occident te bu problème amee mu ne diine mag ñi diine mag ñi kii buñ ko xaaree ci diine mag ñi mag ñi seen diine yàqu parce que moom bi fa waroon a dogal baayam moo waxee baayam ñaata mag ñu bind ci muraay mag ñi nekk Sénégal ñëpp xam naa ci ñu ëpp juróom-benn mag ñu bind ci wax imaam ko bind seen nekk ba nekk xalifa yi kenn ñemewul wax loola déedéet allahu akbar mbokk yi xeex bi moo metti boo nekkee diggante occident bi la xeex nag ak ay nit diine yu comprendre bi la xeex bu yeboo mu nekk moo la fas bi mu muñ leen seeni xeex mooy xeex ba dugg ci nii jigéen lu ko neex mel na am liberté na dem liggéey mën na yëngu jigéen jigéen am na droit ci def lu ko nekk indi nañu melokaan boobu ba léegi jigéen gën bu ko neexee génn te fàtte nañ ni jigéen mooy murabbiyatul ab ak yàlla jigéen mooy defar kër ki war a defar kër bu xëyee génn nga xëy génn njaboot bi ku leen di defar kuy defar doom yi kuy toppatoo doom yi yow loolu kër bi léegi liggéey soxna si xëy na liggéey ngeen toog bàyyi bi wala xale yi yore télé bi di zappé di seetaan ay film porno di seetaan sport di seetaan yu bon moom la ñuy nekk di bëccëg dama dem ba composition yor xale yi composé ñu xam dara bu ko defee papa ñu naan yéen di ngeen nangu jàng fekk papa yaa ko yàqal jàng yaa ngi naan yéen nangu leen jàng fekk yaay jëf yàq parce que kër gu bàyyi nekk doom nekk yàq seen der yàq deru imaam yi ñi war a defar société bi xam bi ñu leen xam la ñuy jël na commencé yàq seen der mbokk yi doo fekk benn benn benn laabe bu ñu yàq deram yi xam jum duñ ko tëj kaso dañ naan dañu bàyyi église mu waxtaan ak moom am na wala amut laabe yi ku jum doo dégg état daal ci kaw non dañu fexe église bi waxtaan ak moom peut-être dafa jum ñu may ko ñaari imam bi ñu taxawu digg ko ci parce que diine moo tax lool jàngalekat alquran la waaraatekat la day wax yàlla neen day wax yonent bi neen dañuy na dérangé kon nañu ko toroxal ñi ñëpp ndax booy bi war a nekk imam ëllëg ragal booy bi war a nekk xatim ëllëg ragal ki war a yàlla neen ëllëg àdduna bi dem fu ñu tëj imaam la ñu tëj àdduna bi yëpp du ko fu neex ay imaam la ñuy tëj ci kaso yi ñoom la ñuy torturé xamalatul kitaab wa sunna parce que ñoom dañuy wax luy loo xamante ne day yëngal day yëngal société ah allah yàlla nee na mu yëngal société musique moom du yëngal société football du yëngal société làmb du yëngal société jaay sa bopp du yëngal société lii nga société waaye imaam min bar bi nga taxaw mooy tunde mooy dul boo nee yàlla nee na yonentam ne terroriste nga donc yàq deeru imaam ba tey imaam jaratu dërëm jaratu dërëm ci société bi mbokk yi ndax lii ànd ak xel ndax ànd nag maandu te tubaab bi moo ko fexe dugal sécurité bu ci gën a yey bi moo ko mën a joxe borom bi subhanahu wa taala nee na bu ngeen bëggee sécurité alladina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dul ulaika lahum al hum muhtadun ñi gëm te bokkaale wuñu yàlla nee na ñoom ñoo am sécurité ñoom ñoo ko am ku dul kooku nag amoo sécurité waaye mbokk yi suñu bëggee sécurité ci suñu réew ñun ñëpp nañ leen fexe jàmm am na am nag ñëpp ci war a jàpp gouvernement ci jiitu ndax moom la ñu dénk sécurité réew mi waaye gouvernement yi ne góorgóorlu ba xool yan tànk lay def pour mën a sécuriser société bi bañ a gaañ kenn bañ a bundu xatal kenn bañ a kenn te teg lépp waxtaan gis nga ñun africain ñun sénégalais soo nu bëggee yilif rek waxal ak ñun waxal ak nit ñi ci wax daal lii kat gis nañu ko dañ ci waxtaan nangam nangam waxtaan ak wàllu diine waxtaan ak kilifa yi waxtaan mag ñi ñëpp jàpp ci mu bañ a nekk mbir mu ñuy nii di xas nii di xeet nii bu loolu amee rek jafe-jafe lay am maa ngi dénk nag sama bopp di ko dénk am sunna yi di leen wax ni muñ leen ne loolu la yonent bi jàngale woon balaa tukki dana am ay buur yoo xam ne lu leen neex la doxalee waaye ngeen fexe leen ba seeni doxalin ngeen maandu déggal leen te déggal leen mooy déggal yàlla te déggal leen mooy déggal yonent ñaari mbir nag dana am kilifa mën na jum ba tere yàlla digle wala mu digle lu yàlla xaraamal yow jullit bi bu fekkee ni danoo wax ni nangam jiikat insécurité la ci dëkk ndax gis nañ mooy indi insécurité yow jullit la la yàlla waxoon démb nga bàyyi woon ko foofu lañ la delloo ñu war ko delloo delloo yàlla dafa ne waqarna fii buyutikunna wala tabarrajna tabarruja al-jaahiliyya comme soo muuroo soo génnee lu doon sécurité toogal sa kër te boobu mooy sa santaane bu dem jàkk borom bi yeneen ñu noonu laa tamna'u imaa allahi masajid allah jaw toogal sa nekk di julli toogal sa kër boo nekkee sa kër islam may na la nga muur muuraay jéem toog kër gi am na ñeneen li nga mën a dox am na ñu mën a dox jarul ngay génn kon waqarna fi buyutikum axawaati al xaalidaat yéen suñuy soxla yéen jigéen ñi yéen ñi bëgg diine bay muuru toog leen jigéen yi dal bu leen mer bu leen kaas bu leen def dara dal ndax santaane bu njëkk bu yàlla santaane yoon fu ngeen ci delloo yéen ci jàmm mooy waqarna fi buyutikum toog leen ci seen biir kër yi lu ngeen amee soxla seen jëkkër doxal leen su ngeen amee soxla seeni doom doxal leen ko su ngeen amee soxla waa ne doxal leen ko su loolu amee bu ñu wëree ci mbedd yi gis ñu kenn xanaa ko danañu jàmm am na ba beneen ba ba ñuy tuumalaa leneen ne xam naa bu ñuy paasee ci leneen la ñuy jëmaa mais toog leen toog leen jaru génn jaru génn jaru dem fenn jaru xuloo muñ su ngeen muñee incha allah yàlla dina leen dimbali شاء الله فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون kon moom leen yéen la ngeen yéen ni société ngeen boo xam ni ci waxtaan ak dal ak jàmm lañ leen xamee ni Sénégal bokk leen ak France bokk leen ak Italie bokk leen ak États-Unis français bu meree am na tubaab def lu ko neex yow jullit nga Sénégal boo meree xoolal li la yàlla wax ba pare waaye nag wal kaasimiina al-ghayza ñi gën ci nit ñi mooy ñuy wan ne mer suñu mer tere nañ la loo xamante ne dañ leen jaay doole wannal mer bi te toog yàlla bindal li ka ko tere su deful ndànk xam li mu tere moom yàlla yow seen def wal kaasimiina al-ghayza wal aafiina ani naas may leen wax bi daa bëri bu leen génn toog leen yéen ahlu sunna bu leen nekk di werante ci mbedd yi bu leen nekk ci oto yi werante bu leen noppi leen mel leen ni comme si dara amul fu leen nit seen dara wax am kay moom kay mu raay ñi ñoo ko fi def ñooy nangam toogal te noppi gis nga wax taxul fii fees ñii wax mënuñu wax a wax a wax ba dérangé yàlla tax ngay def noppi li ko seetaan bàyyi leen di coow am na ñoo xam ne lay profitaare dañ cee bëgg a profité bu leen tontu sa xol xam ko yàlla xam na ko bàyyi bi yàlla am nga naqar lu yàlla digle ñu tere ko ndax nii nga gisee moom gisee nee loolu sa dégg yéen góor ñi yore waxtaan leen ak seen soxna yi mu nee leen leen ñu toog ñu dal wallahi bu jaree sax soxna yi bañ a dem marché ñu fay bu jaree sax ñu bañ a dugg dana ko bàyyi su jaree sax ñu bañ a toog ba dañu ko bàyyi ñun góor ñi ñu dugg xanaa ñun bi ñu dugg ñu ne léegi ngeen a groupe am kenn duñ ko wax xanaa ñun bi ñu dugg ñu ne ngeen nangam kon yow góor sa jabar fexeel nga dem ba dugg dugg pour rek jàmm am ndax gis naa ne loolu moo mën a indi jàmm jàmm police mënu ko indi gendarme mënu ko indi armée mënu ko indi nit mooy ut jàmm mayee ko ut jàmm am su ko ñëpp defee yàlla may ñu jàmm hada wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammad sécurité jàmm mënta ñàkk islam suñuy jàmm la yàlla ñu yàlla defal jàmm wa axiru daawaana an alhamdulilahi rabbil alamin qumu yasir allahu li wa lakum wa lisaa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafur